une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer LGBT foog ñu jàpp ne ci nooteel bi la bokk te ñun waruñu ko nangu ni ñuy waxee français fa dégage ni ñuy waxee armée étrangère dégage ni ñuy waxee FMI Banque mondiale go noonu la ñuy waxee agenda pro LGBT dégage agenda pro LGBT go dama ne am na ñu naan lii jaru ko ndaxte yoonu Sénégal moo sib mbiru góor jigéen waaye dama ne seen mobilisation bi jar na ko lu tax jar na ko koo xam ne dafa waxoon ne du mus fal rakam mu fal ko koo xam ne dafa waxoon ne cinq ans lay def mu def sept koo xam ne dafa waxoon ni du def troisième mandat mu naan tey nii wii nii non buñ ko seetaanee suba lim ñuy wax mooy waxul nii wii waxul nii non ci wàllu góor jigéen te foofu war ñu ko egg moom buñ ko seetaanee ëllëg dinañu wax nii wii nii non li may ñaan président Macky Sall ak gouvernement bi mooy dafa waxoon Barack Obama ne ko askanu Sénégal pare pour góor jigéen waaye dafa mel ni ci tànk yi ñu nekk mooy fexe ba ñun ñu pare ñun ñu pare mooy lan boo seetaanee film nga gis góor ak góor di fóonante boo seetaanee film nga gis jigéen ak jigéen di fóonante boo taalee sa tele nga gis góor ak góor di sëy loolu nag moo war a jeex noonu la ñuy préparer suñu ndaw yi di préparer suñu ay doom pour jàpp ne góor jigéen dara nekku ci lesbienne dara nekku ci moo tax ñu war a jóg ànd xeex ne góor jigéen dégage agenda pro LGBT dégage jërëjëf jërëjëf jërëjëf Euh, ñi ngi toog ak euh, oustaz euh, Serigne Mbacké Sylla di kenn ci doomi daara yi waaye ci kenn ci ci ñi nga xam ne ñoo porté combat bi nga xamante ni combat la bu ñëpp waroon a taxawee tey jii ñu taxaw ci oustaz ginnaaw bi ngeen wootee ba noppi ci xew-xew bu nga xamante ni bu ñu ràññee ko la boo xamante ni ak bëgg du ko fàtte mukk ndax taxawaay bi waaye ban gis-gis ngeen am ci ñëw bi nga xam ne ndaw ñi ñëw nañ ko ngir wuy si leen ci woote bi waaw sant bu baax ak it gis-gis moom xel mu dal la àndal ndax ku rawatina ñi la wuy si mën ngaa wax ne ñoo ñoo la tax di xeex ñi la wuy si mooy ndaw ñi te ndaw ñi ñoo tax ñuy combat combat ndax man ñi moom seen wàll wéy na ba noppi léegi boo wootee nag gis ne ñi la ëpp ci ñi wuy si ay ndaw lañ ak ay jigéen da ngay am mbégte da ngay sant yàlla bu baax moo tax daal am ah, da ngay am yaakaar itam ndax ndax ndaw mooy jiw ëllëg te tey jii ku fi teew te gis taxawaayu ndaw ñi bu sa xol sedd ci loolu amoo ci xel mu dal daanaka amoo gis-gis moo tax xel mu sedd la ci am ak xel mu dala dal dal macha far fan ngeen euh, ban jéego ngeen di tegaat bi nga xamante ni li am na waaw jéego bi ñoroon xaw nag mooy woote ndaje mi yëgal askan wi ñu woo woon ci le 23 mais dañoo daje woon wax lu mel nii wax na dañuy def projet de loi bi ñu yóbboo projet de loi bi ñu gàntal ko ñu dajee yëgal leen ne gàntal nañ ko léegi bu ñu demee dañuy dajawaat waxtaan daal di ñëwaat nag ci beneen jéego bi ci war a topp incha allah. macha allah lan ngay wax ak euh, par ñi nga xam ne ay nit diine lañ wooyee ñu contre carré euh, li nga xamante ni moom ngeen di. waaw léeg-léeg damay jàpp ne ñàkk a ñàkk a lay doon rek ndax ñëpp dañuy wuute ci euh, léeg-léeg yenn ci yëf yi waaye ñëpp d' accord nañu ak ngóor jigéen baaxut d' accord nañ ci àtte yi leen lislaam wax d'accord nañ ci lépp léegi nag baatu criminaliser ak bañ a criminaliser àdduna ba sosoo ba léegi concept bu mas a am ñëpp duñ ci ànd waaye loolu du ñu tàqale du ñu tàqale ci pas-pas yi ñu tàqale ci yëpp waaye nag mën naa yeexal suñu combat ndax bu yàggee ñun ñooy tontonti suñu biir te loolu dafa bokk ci li nga xam ne dañuy gàllankoor waaye ala ku xaal li wér te wóor daal mooy ak ngóor jigéen moom jàpp naa ne képp kuy nitu diine wala nga di jullit bu comprendre lu di ngóor nga ko bañ nga am réew nag bu nit jógee léeg-léeg ñenn ñu ne day politique yi ñenn ñu ne diw la àndal ñenn ñu la contre ñooñu loolu mooy seen i taxawaay donc ñu nangul leen ko te jéem leen a comprendre donc te jéem leen a convaincre rek loolu mooy suñu yéene macha allah. jërëjëf Sall Mbacke jërëjëf maa ngi nuyu waa rafaat TV lépp nag di rafetlu seen liggéey macha allah jërëjëf jërëjëf ñu ngi taxaw ak euh, sëñ Guédé euh, bàyyi ko ci Touba di délégation boo xamante ni bu am solo la euh, ñu féete woon ci wàllu coordination sëñ Guédé euh, wàccaay wi euh, nan ngeen dundee wàccaay yi ak euh, xew-xew bii nga xamante ni tey moom la ñu woote woon fii ci Dakar. alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax a baax a baax wàccaay wi noonu dund nañ ko dund boo xam nii mën na ni yomb na yombul ndax lu matul ñaari fan ñett fan nga coordonné si ñaari bus ak ay oto yu ndaw liggéey bi metti na suñu téléphone bu mi ngi doon soné waaye nag lépp liggéeyal suñu borom la sant nañ si yàlla baax a baax yàgg na noo génn nag di dem ay manifestation mais manifestation bu mel nii régiré nii mustaam parce que ànd di dox marché boo romb mbooloo topp la loolu yëpp politique la waaye tey ni ñu def nii man fii ba Casamance Koungheul Mbour cees fu nekk lan ma doon woowee di ma wax dañuy dem dañuy dem Touba si suba tey kër Sëñ bi nekk daar Manaan lan déparé lii nag alerte la si mbooleem koo xam ne nii yaa ngi nekk politicien nga xam ni am na loo xam ne mënatuñ koo nangu Macky Sall liñ koy ñaan mooy li man na ko def mooy criminaliser góor jigéen bu ko deful fii ñaari at day wàcc réew mi beneen président boo xam ne moo ngi fii man di toog bu ñëwee tamit nag teel a xam ne ñun liñ bëgg mooy nan criminaliser góor jigéen te nag mbooleem réew Europe yeeg mbooleem fu fu mën a nekk nan xam ne ñun Sénégal fii nii am na loo xam ne ko fi nangu te agenda bi nga xam ne mi ngi ci école na arrêté parce que bëgguñu ñun ñun ay xalelan mais suñu borom defar nañu suñ tubaa defar nañu ba nga xam ne kenn mënuñoo détourné mais xale yu ndaw yi ñuy jàngal Euh, seen kii si école bi nan ko arrêté agenda bi nekk ci école bi lépp lépp nan ko arrêté képp kun jàppati fii si góor jigéen nag moom état bu fekkee criminalisé wu ko ñun buñ la jàppee Touba dañ lay rey jërëjëf euh, ñu ngi taxaw ak kenn koo xamante ni ku ñu ràññee la ci wàllu média Mass Mboup nekk ca Walfadjri Mass euh, ñu gis ne combat bi nga xamante ni tey moo ñu fi dajale woon yàgg nga cee xeex bi nga xamante ni woote nañ bis bi tey jii ban yëg-yëg nga am ci ndaw ñi wuy si nga xam ne wuy si nañ ko xeex bi. waaw euh, gannaaw bu ma la nuyu. Euh, nuyu sénégalais yi. dama jàpp ne tey jii sénégalais yëpp am mbégte. waaw parce que le peuple a répondu massivement. rassemblement bi ñu def tey jii rassemblement la boo xamante ne euh, dañ koy bind ci annaalu histoire du Sénégal. parce que la fekk tey Sénégal dëkk bu ndaw la waaye dëkk bu am valeur dëkk booy tudd Cheikh Ahmadou Bamba dëkk booy tudd maam Maodo Malick maam Limamou Laye maam Baye Niass suñu mbokk ibaadu yi ba suñu mbokk chrétien yi ñuy muy réewum valeur kon tey jii li ñuy euh, xeex c'est un problème de souveraineté maanaam askanu Sénégal mooy jub te laaj li mu moom ñu jox ko ko waaw moo tax nag tey jii li nga xamante ne mooy question de l'homosexualité au Sénégal bu ñu wootee Sénégal yi buyu moo lay wan ne président Macky Sall war na bàyyi xel ne seul le peuple est souverain président Macky Sall war na xam ne Sénégal moom na boppam Sénégal bëgguñu ngóor jigéen ak lépp lu ci aj mm. waaw euh, ginnaaw bi nga xam ne wuy si nañ euh, woote bi wax dëgg yàlla am nañ satisfaction ci wuy si bi euh, lan nga gis comme avenir ànd sàmm jikko yi waaw man man moom sama gis-gis du ko nëpp man dama jàpp ne ñee nekk ci assemblée nationale gënuñu waaw ñoom dañoo tiim ngato bi di ko lekk rek ku ñëw ñu lee eh, bu laal <laughs> waaw lan lan moo waral loolu boo génne ci daara yi amoo droit dugg assemblée nationale. boo jàngul français jàngoo langale amoo droit dugg ci assemblée nationale bële ñoom ñooy ñan. est que ñun dañoo war a toog tey ji Nations Unies banque mondiale FMI xeetu yooyu bëgg ñoo war ne yéen ñu ñoo leen gën ñoo leen di wax ni ngeen di lekkee ni ngeen di naanee ni ngeen di dundee ni ngeen di sëyi. Mhm. du yoon problème bi nag li koy réglé marche yi baax na rassemblement yi baax na waaye ëpp solo mooy. ñu dem biir assemblée nationale les instances décision fa ñuy dogalee ñu nekk seen biir. waaw bu ñu indee loi ñun mën a taxaw mat cinquante député lankal leen waaw. macha allah jërëjëf Mass ñu ngi lay sant. ñu ñu ngi jaajëf bu baax a baax. merci beaucoup borom li ci dëkk bi ngi taxaw ak euh, ay ndaw ba léegi ci manifestation bi nga xamante ni tey euh, mouvement ànd sàmm jikko yi moo ko woote woon fii ci Ndakaaru euh, ñu ngi taxaw ak Modou Lo Modou Lo Mouhamed Lo kon lan moo waraloon sa ñëw fii ci rassemblement bi ak ban yëg-yëg nga am ci ñëw gi nga xam ne ñëw nga ko ak ni nga gisee wuyu si bi nga xam ne ndaw ñi wuyu si nañ ko kuréel bii salaamaaleykum wa rahmatullah mm, sang bi ñu ngi lay fay am nuyoo ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonante bi mm, sant Serigne Mountakha mi Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool te am ak dañ fay ñëw en tant que taalibe en tant que jullit mais en tant que taalibe boo xam ne mm, ginnaaw xas nañ ba jébbale suñ bopp rek ne aslamtu nafsi doon ay murit mbooleem lu bon fuñ koy xeexe fu ne rek jàpp nañ ne war nañ caa teew ndax loolu rek mooy suñ mag ñu baax ñi liñ nekkee woon ci réew mi di ko def loolu moo waral suñuy tànk ci teewaay bi ñu def délégation xëy jóge Touba ñëw xam ne yëf yi am nañ ci responsabilité bu rëy xeex ko te ñu def ko yéene waale ci mbooleem yoonu murid yëpp ndax xam nañu ku ñëwul ku ne rek am nga yéene ñëw Euh, nan ndaw ñi ñëw gi nga xam ne ñëw nañ ko wuyu ko ak euh, seen euh, mobilisation bu am solo bi nga xam ne wane nañ ko muy wane ne xale yoo xam ne yu takku lañ yu noppi ngir xeex lépp luy am mbon ci biir réew mi. macha allah loolu moom dafa sedd suñu xol lool fi mu toll nii société bi léegi dañoo jël seeni responsabilité ci lépp surtout ñuñ ndaw ñi te loolu mooy li war ça veut dire mbuumu jaam gi ñu état yi fi nekkoon. ak bi fi nekk actuel moom lañ war a jeexal ni gën a gaawe ñoo xam ne léegi àdduna bi euh, dañoo war a doxewaat ci beneen système te dara jiituwu ci lu dul la suñ borom digle ñu nekk ci muy njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di la Serigne Touba nekkoon suñu yaakaar tey ak ëllëg loolu doo nga tax ñu ñëw fii mm, ñëwaaleel fi ñëpp rek. macha allah jërëjëf sëñ Mouhamed ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf. jërëjëf baarakallah jërëjëf. mbokk mi ñu ngi lay nuyu di la ziara bu baax tey jii nga ñëw fii ci euh, mobilisation bu mag bi nga xam ne waa mouvement ànd sàmm jikko yi ñoo ko amal bi nga ñëwee lan nga lan moo retiré sa attention dëgg-dëgg ci mbooloo mi ak ni nga gisee ni ngi wuyoo ci woote bu mag bi waaw li ma gën a neex mooy jeunesse bi dañoo booloo ñëw parce que ñoom dañoo xam euh, xam ni mal bi si ñoom la nar a moo tax jeunesse bi léegi dañu déterminé ci combat de valeur yi ci combat wu ci euh, représenté ndonal maam bi jeunesse bi moo tax dañoo ñëw taxaw si naaj bi te nangu wuñ sax ne naaj bi tàng na waaw pour wax bàyyi ni leen ñun pare nañ ci lépp lu ngeen lu ñu woo dañ leen ciy fekk si parce que Sénégal réewu valeur la te lépp lu fi nekk pour défendre valeur ñun dañ ciy nekk ñun ñun jeunesse bi te instant bi nii occidentaux yi Nations Unies ak Macky Sall dañoo bëgg yàq valeur ci Sénégal te ñu duñ ko nangu lan nga euh, lan ngay wax sénégalais yi nga xam ne ñi ngi lay teewlu ak euh, élection législative yi nga xam ne ñi par rapport ak euh, suñu euh, loi bi nga xam ne dañ ko euh, gàntal bañ koo voté ñoom député yi. waaw sénégalais yi teew lañ leen di wax dèjà ni leen combat bi combat wu ñëpp la kenn warul nekk spectateur si combat bi ñëpp ay acteur lañ war a doon nga nekk sa biir kër woote nañ da nga a ñëw soo mënul ñëw na nga wax nga sensibiliser sa koñ ku nekk jàpp ci côté bu nekk pour ñu mën a ensemble gagné combat bi parce que ñax jariñu la li li cher li cher a foofu beneen bi mooy législative ñu ngi ñëw dañu leen waxoon nañu leen voté nañ ñu voté une loi qui criminalise l'homosexualité ñoom ñu bañ. ñu euh, locales yi ñëw ñu boycotté leen dóor leen dóor yu métti ci locales yi affaire yi saf sap si ñoom ñu ngi leen di wax ni législative ñu ngi ñëw parce que député si boppam ñoom ñoo rejeté suñu loi bi te député yooyu dañu leen wax ni ñun ñun ngeen di teewal. député yi ñun la ñuy représenté mais représenté wuñ tubaab yi comme ñoom représenté tubaab yi moo taxoon ñu rejeté suñu combat bi dinañ leen wax ni maintenant euh, dinañ leen fi jële indi fi ñoo xamante yi nii sénégalais yi la ñuy représenté pour ñu mën a voter sénégalais yi loi yoo xamante yi nii moo méngoo ak suñu ay valeur méngoo ak suñu ay diine merci beaucoup jërëjëf ñu ngi lay sant di la jërëjëfal bu baax a baax sama sëriñ ñi ngi lay ziare bu baax a baax euh, euh, ñëw nga wu si ci woote bu mag bi nga xam ne waa mu ma ànd sàmm jikko yi ñoo ko woote woon nga ñëw lan moo la xëcc ba nga ñëw wuy si woote bi ak bi nga ñëwee lan nga yëg ban yëg-yëg nga ci am. waaw ah, bi ñu bu combat bi dafa nekk combat moo xamante ni combat bu noble du xeexu mbooloo wala xeexu ñett nit kese dafa nekk combat bi nga xamante réew mi yëpp la war a doon. ndax ku xam wàllum góor jigéen xam ne luy yàq la ku xam wàllum góor jigéen xam ne luy yàq xale la dafa nekk xeex boo xam ne du xeexu jullit ñi kese sax même ñun mucc nañ si wala boog suñu parents mucc nañ si mais suñu njaboot ñuy ñëw ëllëg hmm. ñooñu la ñuy nga xamante ni dañuy jël agenda bi di ko boole seen programme école yi ñun a gaawee est euh, nañu xeex ba jëlee ko fii ah déjà ñu si commencé réussir parce que boo xoolee manifestation bii passé boo xoolee ba mu jeexee nga gis seen kilifa yi commencé di génn def déclaration di tëggu sénégalais yi kon bii tamit noonu la rek ku gis mbooloo bu teew fii xam ne ñuy politique yëkkatiwu leen hmm. ku gis mbooloo bu teew fii xam ne ñuy ay kaar yëkkatiwu leen hmm. te lii image la day wër àdduna moo waral tey ñu taxaw teem jàkkaarloo ñoom wax leen ni ñun bëgguñu góor jigéen suñu ay valeur aussi nangoo macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Cheikh bég naa merci beaucoup Rafah TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer